seen boutique médecine prophétique et traditionnelle di centre Ruqya de Kër Massar nekk fii ci jaxaay moo leen indil ay garab yu efficace yu pajum cosaan ak ay produits original yu ñu baaxoo ci pajum sunna maanaam doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa ci pàcc ak fagaru ngir am ci garab yi man ngeen ñu fekk fii ci jaxaay ci deux voies yi première doodaan après rond-point jaxaay wala ngeen wooñu ci 33 875 10 20 wala 77 042 95 17 ak seen boutique médecine prophétique et traditionnelle di centre Ruqya de Kër Massar jàmbat jeex na. moom dafa neex. bismillahi rahmaani rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بقي انترنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول في نيو دي الزيار نيان يالا مو دافال لين جام مو دافال نيكو بقي توب سين بي دي ام ام اس نقول في نيو دونك دي دل سوات اك يين تي سين بنين ريبريك سافارسي تاي مبوكي ان شاء الله داني نيو اك يين واخطان اك يين تي نياري مير ñaari mbir yooyu bi ci jiitu mooy li ngeen gis ma téye sama sama loxo muy li ñu tuddee euh, les dix wil ñun ñu koy tuddee huile shifa huile shifa bokk julit ñi li xeetu garab la goo xamante ne nii dees koy jëfandikoo ci wàllum ruqiya ci wàllum ruqiya ta shar'iyya li ko tax a jóg ci kàttanu yàlla mooy xeex ñi nga xamante ne nii dañuy am wàllum possession ñi nga xam ne vraiment donc setan day dugg sen yaram di len danel wala muy dox ci bir yaram bi donc di len jural ay gàllankoor yu bare bare bare di len perturber ci sen walu nelaw werna ci alquran ak sunna que ne da fay dugg ci yaram nit manam seytaane amna yalla yàlla nako katan mu dugg ci yaram doomu adama di wax ci làmmiñam di fo ci xelam bal mu koy danel bal sax mu man ko indil ay problème bal sax mu meuna a tuur jigen mu meuna tour a jigen sa yu jigen ëmbee bal sax mu man ko tere bu ëmb seytaane lolé lepp yalla may na ko kàttan ci doomu adam ñaareel bi ci des moy walum jabar ko xamné dañ ko jàpp mystiquement ko xamante ni tamit dafa amé far rabb bu bop ko xamné daf koy sonal trop ñun ci sunu experience ak ci yagg xalaatal doomi aadama yi lu leen di jëriñ ci wàllu wii moo tax ñu proposé leen li nga xam ne mooy dix huiles yi mbokk yi lii xeetu garab la boo xam ne ñoo ko composé ak dix huiles huiles yooyee bokk na ci xaltit bokk na ci sudab bokk na ci xabatu sawda bokk na ci misk bokk na ci xarmal bokk na ci xistul hindi muy costus indien bokk na ci lubnan bokk na ci shobta bokk na ci sidr bokk na القرن alquran alquran fula ak qorontaat yooyee yëpp ay xeeti huile la yoo xamante ne ni composé nañ ko ci li nga xam ne mooy huile bi nga xamne moy mooy mélange bi bok di moins ben mélange la bo xamne ne plus de fukki huile wala fukki huile ak ben def na ci bir te li ci gëna a moy xet bi naqari wul xet bi naqari wul efficace na trop ci ñi nga xamne dañoo am ay faru rab yu dëgër ay faru rab yu doy war ay andando yu doy war yu dëgër bop yo xamne da lay tere wala muy mett saw yaram wala mu la indil ay galankor di perturber say règle xale mën na ko mak mag mën na ko jëfandikoo huile bi mbokk yi efficace na ci kuy daanu ko xamne day daanu ay jinne dañ koy daanel ko setan jigadi ko rab jigadi huile bi mbokk nit ñi efficace na aussi ci koo xam ne donc bët da laa jàpp ci koo xam ne bët bët da koo jàpp maanaam cat da koo téye bi aussi efficace na ci parce que huile yi nga xamante ne ni moom lañ ko composé daf ci am ay huile yu aay ci mbir yooyu dafa am ci ay huile yoo xam ne dafa aay trop macha allah yàlla da ci def faj bu yéeme yéeme yéeme ci koo xamante ne nii setan mom mo la jàpp masalan tay misk misk miskul aswad bi misk misk misk noir bi mos ngeen a gis ñu explique ko misk noir bi dafa am katan trop manam yalla subhanahu taala da ci def katan bu yeme ci mana chasser mana dak rap ci yaramu do adam mo xam mag nga wala wala ndaw ñi nga xamne mos na leen ko tegtal ñu jëfandikoo ko gis nañu résultat yi gis nañu résultat yi misk noir léegi misk noir dafa bok ci yi ñu mélanger huile bi

nga jël huile bi diwoo ko dégg nga donc da ngay yëg ay mbir yu doy waar yu yéeme yoo xam ne mu ngi xew ci sa sa jëmm. yàlla dara is say souffrance ci wàllum ay affaire de àndandoo affaire de rab yooyu yëpp incha allah dinañ gis mu daal di dem. Euh, leneen li nga xam ne moom la ñu bëgg a ñëw mooy siddéem siddéem mbokk yi mos nañ ci wax te dañ ciy waxaat li waral ma ciy wax tey sax mooy sama benn xarit ndeysaan sëriñ daara la yal na yàlla defal ko ndam defal ko tawfiq démb daf maa woo di ma nettali lu dal lu dal soxnaam lu dal jabaram mu daal di may wax ne euh, euh, mu daal di may wax ne moom soxnaam si dafa jékki-jékki rek jóge ci xalq bi maanaam xalq mooy cercle boobu nga xam ne moom la taaliba yi di def pour jàng alquran euh, soxnaam mooy jàngal jigéen ñi soxna si nee na fi mu toog noonu rek ci cercle bi di jàngal jigéen ñi. ci la jékki-jékki rek daal di jóge ci kaw ñetti ñetti escalier wàcc dugg ci néegam daal di dar boppam bi dar bopp bi dar bopp bi dar bopp bi dar bopp bi dar bopp bi daal di tëdd tëddin bu may waar sama xarit boobee sëriñ daara bi nee na xawma lu may def te jàngkatu alquran la kat nag ku ne xam na ne jàngkatu alquran la ndax sëriñ daara la nee na ci saa si laa dem rek wuti ay xobi si dem rek daal di cee dagg lu bari rek dugal ci mis ci ci mixeur lañ koy tuddi xawma mixeur nee na ma daal di koy mixé mixé ko ba mu wow rek ba mu ba mu ba mu ba mu mokk nee na ma sotti ci ndox dégg nga daal di ci jàng alquran jàng ci fatiha ixlaas falaq ak naas ko ci nee ma jox ko mu naan nee bi mu ko naanee li des ma jox ko mu sotti ko ci yaramam nee dañoo toog luy tolloo matul sax juróomi minute nee biir buy daw daal di koy attaque biir bi daal di daw mu daal di dem toilette bi mu bisee mel ni dara mosu koo daal mu mel ni dëgg lu seq mu daal di may woo téléphone ci sens yi daal di ma koy expliqué ma ne ko xobu siddéem mu ngi noonu ñu baree baree bari dañ koo siiwe ci faj ku njabar jàpp man mii laa leen wax xawma lu gën a efficace xobu siddéem dem ci kàttanu yàlla ci faj njabar jàpp même huile bii sax am na si mu ngi nii am na si boo ko gisee da ngay gis ñu bind ko ci sidr am na si maanaam def nañ ci li nga xam ne mooy mooy si dem mbokk jullit ñi man xaw ma lu ko gën efficace ci toj liggéey toj njabar bu fekkee ne dàmpul waa bi nga ko jëfandikoo jaar na yoon ci kàttanu yàlla maanaam moo xam jabar goo lekk la mbaa jabar goo naan la mbaa jabar buñ la bind la mbaa ñu suul mbaa bu lu mënti bi mu ko defee biir bi daal di daw te dafa bokk ci luy wane ne maanaam dafa bokk ci njabar buy génn ci doomu aadama nu muy génnee jabar dina génn ci ñetti anam buy génn ci doomu aadama dana génn ci ñetti anam jabar dana génn ci wàccu directement nii nga wàcc ko mu daal di génn njabar danay génn ci biir bu dafa la jaare sa biir daw nga dem toilette ñaay njabar dina génn ci ay tiflit ay tifli am na ñoo xam ne bu ñu leen moccee xeeti tiflit yi génn ci ñoom day mel ni yow yaa jàpp sa buum gi xëcc tellement que tiflit ya na muy fare ak na muy tawwi koo léegi léeg nga mocc nit muy tifli rek di tifli di tifli di tifli rek fekk njabar bi noonu lay toggoo ci yaram bi di génn léeg léegi it mu def la xel mu tey te effectivement bi ñu waxtaanee man ak moom am na lu ma wax loo xamante ne nii xam na ma xam nañ yem foofu parce que ci écran la ñuy wax ci laa ko wax ne moom ci laa ko wax ne ci laa koy tonca na ko yow de xaw ma lu xew waaye téye nga mbirum téye nga si dem fi mu ne mu ne ma si dem kay li ma si gis maag yàlla rek ko xam kon loole maanaam dañ leen koy wax maanaam yoo xam da ngaa yor daara yow mu yor yow mi nekk sëñ daara yor daara léeg-léeg sa nongo yu jigéen ñi am nuy daanoo ko di bi ko ko yow mi nekk parent yor ay élèves yoo xam ne ñoo ngi jàngi di daanu école ñu lay woo ngay jëlee ko indi. MMS yow mu yor malaat yow mu yor ku hospitalisé hôpital yow mu yor mënti doon si bii ngay romb sa koñ mbaa sa buntu kër mbaa sa biir kër wallahi yàlla def na ci lu la mën a faj bu ko xeeb ëpp naa def si bii ngay xeeb nii léeg-léeg sax mu am suñu kër yi ñu koy gor gis nga si dem boobu ngay romb ci buntu kër gi sax booy génn sa kër di ko romb wala nga koy romb ci mbedd mi wala mu ci biir kër gi ngay xalaat bis bu jot naan mën naa koo gor. gis nga sa malade bay hospitaliser hôpital wala sa dom bi fièvre di faju to wër wala sa dom bi jigen bi nga xamne mu ngi daanu ci école ak ñuy yéno ko indi wala sa soxna si am problème wala ndongo yi ñu la denk ñuy daanoo ko di daanu ay rabaka manam si dem bi yalla def na ci ci mu yalla dégg nga lu la ci mëna lu la mëna woyé falal yeen bobé lu la mëna genn ci situation yoyé dina ñëw ci mode d'emploi yu bare bare bare bare dinañ hmm. ñëw ci ay mode d'emploi ci wàllum siddéem dem naka lañ koy jëfandikoo nan lañ koy utiliser ba mu mën ñoo saafara bu soobee yàlla mais daal xam leen ne siddéem dem mbokk jullit ñi kéemtaan nañ ci de man de mosuma foog ne sa si dem dina génnee saytaane ci yaram doomu aadama dama foogoon ne jabar rek lay toj waaye effectivement ku jinne jàpp bokk na ci li ci gën a mën a gaaw ngir dàq si bi ngir dàq jinne ji si dem bokk na ci ñun léegi-léeg nga gis ko xam day daanu mu jël laaj toj ko def ko ci bakkanu nit ki loolu baax na waaye si dem ndekete day def sax lu laaj bul def waaw loolu dañu leen ko doon baaxee rek dañu leen ko doon baaxee ñoo ngi jeexal pour di leen annoncer benn émission am solo ci chaîne bii nag lay xewee ñu ngeen ko xaar yéen ñëpp biir réew meeg bitim réew émission boobee liñ ciy waxtaane dinañ ko def ay pàcc pàcc ñu ci bëgg a waxtaane mooy secteur yi njabar di gën a attaqué ci réew mi les zones déedéet du du zone waaye li ñu bëgg a wax mooy secteur voilà secteur parce que zone mooy dëkk dëkkaan yi te loolu dinañ ci ñëw maanaam zone yi gën a mystique ci réew mi ay zone yu gën a ci réew mi loolu dinañ ci ñëw waaye bii baa dañuy bëgg a ñëw ci secteur yi gën a mystique ci réew mi mooy yan secteur ndax xam ngeen ko dafa am ay secteur yu ne fii ci réew mi yoo xam ne mooy secteur yi gën a mystique nga xam ne képp ku yëngu ci secteur yooyee bàyyil xel ci sa bopp bëgguñoo waxuñu nag ngir tiital kenn wala ngir diaboliser wala ngir déedéet maanaam ñun dañuy alerter wallahi loolu rek moo tax ñuy def maanaam dañuy alerter bàyyiloo xel nit ñi li nga xam ne mooy réalité bi nga xam ne ñoo ngi koy dund te mënuñu koo ignorer ignorer ko musiba la boolu moo tax ñu bëgg leen ñu bëgg see dut baaraam waxtaane ko donc daal di leen orienté nag parce que waxtaan bi aussi tamit foofu lay mujj de jox la ay orientation ci mbir mi pour nga mën ko xam maanaam dañ lay yee ba nga yeewu ñu daal di lay orienté solo ak alquran ak sunna yonent bi alayhi kon incha allah dinañ ci tàmbali du yàgg dara ñu waxtaan waxtaane secteur yi gën a mystique ci réew mi ñu wax tamit musluwaay bi aussi tamit lan lay doon insha allahu taala yal na yàlla sàmm ñu te sàmm leen wa axiru dawaan alhamdulillah wasalaamu aleykum wa